ñu daje woon fi tey pour activité de couverture bu Gammu 2019 di wax na nag euh, Croix-Rouge comme auxiliaire des pouvoirs publics la vraiment ñëw nañ nekk à côté du district jël deux cent euh, deux cent soixante deux éléments dugal ko ci dispositif bi pour mën a couvrir gàmmu gi deux cent soixante deux cent soixante deux éléments yooyu noonu li ci ëpp ci troupe bi ñu ngi leen indi basé au niveau de Médina Baye ñoom ñi nekk Médina Baye ñu ngi nekk au nombre de cent cinq parce que Médina baay ñëpp xam nañ ne fa la pèlerins yi gën a bëree léegi nag euh, éléments yooyu yëpp dañ leen répartir en système d' nga xam ne équipe yi kenn yenn équipe yi dañuy dem ci kër kër ñi yenn équipe yi dañuy dañ leen def ay brigade mobile nga xam ne su amee ay jëye yoo xam ne am na ci gox goxaat yi ñooñu mën a déplacé wu dem régler le problème amoon na benn équipe tam boo xam ne dañ ko prévoir woon comme RLF mais ren jafe-jafe bi ñu am ñëpp a xam ne ñun euh, bu gàmmu amoon dañuy fekk ci école Medina Baye nga xam ne si këru gàmmo gi la si xolu gàmmo gi la la la la la la la la nekk mais ren difficulté bi ñu am mooy ñun ak policiers yi ñoo doon cohabiter foofu mais ren ñoom ils ont jugé que ñoom rek ñoo war a def ci école ba ba fexe ba ñun daluñu fa ce qui veut dire ñu ngi ñëw fii au niveau du lycée nga xam ne dafa sori gàmmo gi fa lañ dal. léegi nag loolu ça va dana dana gàllankoor liggéey bi parce que euh, ñëpp a xam ne RLF xale yi réer yi ñoom lañ doon euh, dajale foofu di leen naxtaan di leen jox ñu lekk jox ñu naan bañ bañ mën a gisaat seen seen seen famille mën a delluwaat ci ñoom mais diggante gàmmo gaak fii xam nga ne sori na lool xale bu réer xam nga kenn du ko mën a jëlee ca gàmmo ga fa xewee di ko indi ba ba ba ci euh, lycée bi buñ sañoon nga xam ne peut-être dans les années à ren moom la coup est déjà parti police moo waroon gën a mën a base moo waroon basé wu fii ñun ñu nekk au cœur de Médine loolu moo ne woon li gën a jaadu mais comme nag euh, ku ñu ëpp doole moo ñu teg loolu mënuñ ci dara ñun dañoo ñëw rek pour indi sunu sunu sunu sunu ndimbal ci gàmmu gi comme guddi gi ñun ñëpp ñoo ko bokk mënuñ def neneen loolu moo tax daal vraiment ñu ngi koy joytu peut-être autorités yi bu ñu ko déggee ñoom dinañ essayer corriger di wax ne nag volontaires yi nekk sur le terrain vraiment kenn amul seen fay parce depuis depuis ñetti fan a ngi nii ñu ngi ci kër yi di def ay séances de sensibilisation ci yan comportement la pèlerin yi war a am parce que ñëpp a xam ne fu ay nit daje jàngoro yi danañ fa bëri parce que nit ñi déjà sur le plan hygiène bokkuñ nit ñu comporté woo léegi nag xeetu sensibilisation yooyu lañ dugg di ko def ci kii nga xam ne comportement ci biir ménage yi vraiment dina mën a changer xëy na bu ñu réglé wul lépp tamit dina permettre nit ñi mën a jël seen matuwaay surtout ci affaire lavage des mains ak ñi ñi war a fanaan ci ay moustiquaires parce que daal euh, nit ñi daal bëri nañ. waaw vraiment loolu daal mooy sunu sunu sunu taxawaay ci biir gàmmu gi am na beneen taxawaay bu bees aussi bu bu bu bu Croix-Rouge jëm maa ngi maa ngi xaw a fàtte ren je pense que bu ngeen toogee bu ngeen toogee ci suba léegi gis ngeen ay ambulance yu défilé ren dañoo décidé ci biir ambulance bu ne ñu def fa ñaari secouristes yoo xam ne am nañ expérience bu bu doy parce que li doon xew at yi passé accident da doon am. ñu jël accidenté yëpp yóbbu leen au niveau de l'hôpital ba nga xam ne dafay am surcharge foofu nit ñi vraiment duñ xam tax lan la ñuy def mais léegi nag pour éviter surcharge boobu ren dañu jël ay secouristes agar yi dugal leen ci ci biir ambulance yi au nombre de onze ñi nga xam ne ñoo wër dëkk bi yëpp léegi nga xam ne bu bu jëyee amee yal na yal na bu mu am mais bu amee ñoom dinañ mën a def le tri déjà ñoom liñ mun a régler sur place kii di secouriste xam ne am na ay problème yoo xam ne mun na ko régler sur place suñ ko régler bu nécessité ñu ñu ñu évacuer ko kooku nga xam ne dina mun a ñibbi këram ñi nga xam ne tam dañoo nécessité ñu yóbbu leen ci post yu ndaw yi ñu yóbbu leen ci poste yu ndaw yi ba ñi nga xam ne nag cas gën a garaaw la ñu soog leen yóbbu au niveau de l'hôpital loolu daal mooy taxawaay bi nga xam ne ren Croix-Rouge fan na ko taxawee ci gàmmu gi waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm suñu président vraiment ci ci ci ci ci matam ci ci ci disponibilité di gërëm suñuy partenaires yi nga xam ne ñoom la ñuy faral di jokkal di di liggéey ak ñoom ci di gërëm suñuy autorité kooku bi am daal mooy wax naa ko léegi vraiment ñu prester oreille ci loolu ba nga xam ne déwén dinañ mën a rectifier je vous remercie. Euh, ñu ñëwoon tey ci cadre euh, gàmmu bi accompagné euh, Croix-Rouge régional bu Kaolack précisément départemental bu Kaolack benn projet bi ñuy wax surveillance à base communautaire projet boobu ñu koy financé mooy Croix-Rouge de ak Croix-Rouge Norvège ak fédération ñooy jàppale Croix-Rouge sénégalaise pour mu taxawal projet boobu projet boobu ñu ngi koy taxawal ci euh, ñetti région Ziguinchor ñu nekk fa ci district Ziguinchor fii ci Kaolack ñu nekk ci district Kaolack ak ci euh, Fatick ñu nekk ci district Sokone donc à travers projet boobu dañuy def ay activités de surveillance euh, à base communautaire donc dañuy surveiller maladie maladies à potentiel épidémique ci gàmmu gi nag ñu ñëwoon accompagner le comité départemental ci loolu ñu demoon def réunion ak la district ak commission bi nga xam ne organisé gàmmu bi d'ailleurs def nañ benn point de presse ak ñoom ñëpp ñu ànd ak waa région médicale district def benn point de presse la journée du 7 le matin euh, lu ko jiitu aussi la journée du 6 après midi ñu forme quinze postes de santé formé ku nekk dix membre de SEVAC yi SEVAC yi mooy comité de veille et d' alerte communautaire donc ci biir comité de veille et d' alerte communautaire yooyu nga xam ne moo nekk ci poste de santé fii ci district bu Kaolack dafa am ay volontaire croix rouge ñu former leen pour ñuy dem ci gox-goxaat yi dugg ci kër yi def ay visite à domicile intégré yoo xam ne danañ waxtaan ak nit ñi sur les maladies à potentiel épidémique euh, muy maladie yi nga xam ne bu dalee nit ci dañ ci war a teel a jóg ndax dafay nekk feebar yoo xam ne day wàlle te mën na andi jëya ci mel ni choléra lu ci mel ni Ebola lu ci mel ni méningite lu ci mel ni diarrhée sanglante lu ci mel ni euh, euh, rougeole fièvre jaune ak yooyu yëpp ci la bokk. donc ginnaaw loolu ñu formé woon volontaires yi pour ñu wàcc sur le terrain ànd ak ñooñu pour def sensibilisation dugg ci kër yi waxaale leen tamit su le lavage des mains nit ñi bu mbooloo di dajee dafay baax aussi ñu jëm ci li ñuy wax lavage des mains mooy nit ñi raxas seen loxo ak ndox ak saabu balaa ñoo lekk. buñ génnee ci toilette yi ak yooyu mais surtout balaa ñoo lekk ndax bu mbooloo dajee rek tàmm nañ dañuy génnee lekk yi te nit ñi duñu am temps dem raxasu li ci des aussi mooy l'hygiène de l'aliment l'hygiène de l'eau parce que gis nañu aussi bu daje yu mel ni amee fu ndox la ndig fu nekk la ndox di jóge ak fu nekk lañ koy dencin te dencin bi war na nekk dencin bu rafet bu baax boo xam ne dina mën a permettre nit ñi ñu mën a utiliser ndox mu baax beneen bi aussi mooy utiliser ay moustiquaires imprégnées parce que gis nañ ni dengue baa ngi fii ba léegi ñu ngi koy xaar boobu ba léegi ak waa ministère ñu ngi ciy travail dans le cadre de la surveillance ñu ngi xaar dengue bi mais boobu ba léegi amaguñu ay cas heureusement les deux cas yi feeñ fii à Kaolack c'est des cas isolés yoo xam ne bi ñu defee investigation vraiment c'est revenu bien donc ñu ngi ñaan yàlla dengue bi ba ñu ñëw mais on s'attend aussi à ce qu'il y ait des cas moo tax message bi ñu doon joxee mooy képp koo xam ne am nga cas de fièvre wala ngay di métti nga dem ci structure yi ñu defal euh, prise en charge bu gaaw et bu boobaa bu dee am nañ cas de dengue ko gaaw mun a jël en charge bu mujj bi aussi mooy ñu wax nit ñi aussi pour que prise en charge bi ci euh, gàmmu bi c'est gratuite nit ñi nañu fexe dem dans les structures sanitaire PMA yi ñu ubbi mooy poste médical avancé ñu dem fa pour ñu mën leen jël en charge donc c'est dire que Croix-Rouge mu ngi continuer dans son rôle régalien de d'auxiliaire des pouvoirs publics di gunge euh, le district sanitaire la région médicale pour que vraiment ñu am gàmmu bu baax di wax ni aussi dans ce dispositif on a vu que deux cent six volontaires ont été mobilisés par le comité départemental de Kaolack ñi nekk ci RLF bi établissement des liens familiaux ñi nekk ci euh, Euh, dispositif médical bi pour la prise en charge des cas des malades avec les ambulances et autres ñi nekk aussi dans la sensibilisation donc c'est dire que vraiment la Croix-Rouge mu ngi auprès des pouvoirs publics pour mener à bien cette mission du gàmmu pour que vraiment gàmmu 2019 bi mën a jaar yoon def naa ne suñu liggéey bu ñu yàgg def la mais aussi vraiment cette année ñu ngi ci te am nañ yaakaar daal incha allah dinañ continuer ci rôle boobu